di dalal euh, ki nga xam ne moo jiite woon euh, office central de répression du trafic des stupéfiants di OCRTIS ancien commissaire Cheikhna Keita ñu lay dalal euh, commissaire. maa lay fay di mm-hmm. di waxtaanee li nga xam ne mooy actualité. muy munition de guerre yi nga xam ne douane teg na ci loxo ca port bu Dakar tey ji li nan nga ko mën a jàngatee. boo jàng jàngatee lu simple soxna si. Mm-hmm. vous savez euh, fii ñu nekk ci Afrique sunu booru Afrique bi. Mm-hmm. dafa bari ay yëngu-yëngu. Sénégal nekk ci situation bi nga xam ni dafa jege ay yëngu-yëngu. Mm-hmm. ba tax na ñun d'abord dañu waroon préparer depuis longtemps pour que lii ñu mën a jàkk suñ jàkkaarloog ñu mën tere heureusement def nañ ko. boo xoolee du fii rek la am. de temps en temps booy xool presse bi da ngay gis Burkina Faso wala feneen am na ay armes yu ñuy a jaar pourquoi parce que dafa am fi nga xam ne nit ñi dañ fay jàmmaarloo te suñuy jàmmaarloo dañuy soxla ay fetal ay jumtukaay yi nga xam ne moom mooy régler loolu mm-hmm. maintenant li ci nekk mooy il faut que ñun ñu xam suñu bopp bu baax baax xam fi ñu féetee Sénégal dafa nekk buntu Afrique Dakar nekk buntu Afrique yoon yi di jaar fii di dem ci biir ci biir Afrique donc mais yi tamit ñun ñu nekk ci situation politique bi ak euh, particulière bi nga xam ni ay trouble mën na fi am pourquoi parce que am nañu ay foyer de tension yi sunu ay foyer de tension la bien que fi mu nekk dafa gëmba ni ay nit mën na nañu taxaw ci yeewaat fitna ci yooyu zone ba mën ko fi dugal ay ay fetal dugg fi at dugal fetal yeewaat fitna loolu yëpp suñ ko liyee ak li nga xam ni moo ñu war ci bitim réew ci yeneen réew yi dañuy d'accord ni ñun war nañu taxaw heureusement que nag ñu teew ba mën a arrêté lii ci bii yoon lim ñuy renseigner mooy c'est que effectivement ñu ngi liggéey ci fànn yëpp pour que lii bañ ñu bett j'espère que nag dinañu avertir ba ñu gën a ba ñu gën a dëgëral suñu taxawaay ba ñu gën a ñaawal suñu liggéey ba lu ëpp li sax su ñëwee ñu mën ko arrêté. ndax war nañoo mën a tiit ci lii ñu gis nii. xam nga am réew day day farlu ci li nga xam ni mooy xew parce que responsabilité bu demee ba mu doon tiit rek. Mhm. yàqu-yàqu mu ngi commencé am lii war nañ ci mën a farlu parce que su jubee dina indi yàqu-yàqu. ñu farlu mooy ñu indi sunu ay services yi nga xam ni ñoom ñooy taxaw ci béréb yooyu. ñu gën a yokk seen taxawaay gën a yokk seen teewaay gën a yokk seen jumtu jumtukaay gën collaborer ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci loolu ba su ëllëgee lu mënti xew ñu mën a taxaw ci loolu. Mm-hmm. effectivement réew mi tey su fekkee ni rek dara xewul feneen ñun ci sunu bopp rek war nañu am njàqarewu seet nan lan war a taxawee ci sunu sécurité wu bopp parce que comme ni nga ko waxee tout à mhm. fii bis jàmm moo fi ëpp mais jàmm dafay lal toujours ay ay mhm. ay sur le champ politique te doo xam képp ku nekk nan la taxawee ay sur le plan sécuritaire parce que intérêt yi fii dañuy bari ci réew mi ñi ñu wër dañuy am intérêt fii mais ñi ci biir réew mi tamit dañuy am intérêt ci trouble am fii mhm. loolu mooy doxal réew ci ay rapport de force yi nga xam ne constamment état bi dafa war a taxaw créé ay conditions yi nga xam ne lu jóg rek ñu mën a dal ci doomu arrêté sànq tëdd nga fii benn dëkk bu nekk fii Afrique euh, waaye tey Sénégal la nee nga ñun ñoo aye euh, do ñu bàyyi fi seen i munitions lan moo waral euh, yow lu ñu tànn Sénégal jamono ci ah, ab yoon la ak fu mën ci dem mhm. Sénégal wax naa la yoon la mhm. suñu xoolee ñi nga xam ni ñoom ñoo fi indi loolu mooy ñi nga xam ñoo ko gàddu woon ñu tudde leen convoyeur mm. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser opération bi dinañu mën xam fu ñu jëmoon ak seen ay ay ay euh, chargement mm-hmm. mais première question bi première euh, résolution bi ñuy comprendre mooy mm-hmm. fii dafa nekk yoon mën na nekk yoon pour dugg Sénégal mm-hmm. mais dafa nekk yoon yi tamit pour dugg Afrique fépp mën na nekk yoon pour donc yóbbu ay armes feneen fu dul Sénégal mais mën na nekk yoon pour armer fii ay nit pour que ñoom ñu juglu ci benn direction def ay trouble ah. loolu moo mën a expliquer lii mais comme dugg nañ ci ba jàpp ci ay nit jàpp ay cargaison mm-hmm. war nañu mën a xam si ko normalement dina mën xam fu ñuy mën a taxaw ba su ëllëgee. Mhm. lu mel ni su naree am ñu ñu ko arrêté. Mhm. commissaire euh, tey suñu dëkk yaa ngi koy wax mën na dugg ci Sénégal des Sénégal euh, donc am na benn contexte bu particulier bi nga xam ne ñoo ngi koy dund ñun euh, Sénégal donte ce n'est pas alarmant tey fi ñu toll nii. waaye tamit mhm. am na li nga xam ne moom mooy pétrole beeg gaz bi ñu ne feeñ na ci mim réew. ndax li ni mel mën nañoo jàng wala mën nañoo tiit comme yeneen dëkk yi nga loolu euh, feeñ na fa maladie gi fa am bu loolu feeñee ndax ñun war nañoo mën a jël suñu matuwaay euh, ak yi nga xam ne ñu ngi koy dégg sóoraale ko ci. Euh, gaz ak pétrole réew mu dugg rek dafay indi beneen dimension civilisation wutinu alal ak civilisation wu am alal mm-hmm. parce que ay réew ci seen bopp dañ fay taxaw pour am profit ci li nga xam ni moo fi feeñ muy benn moyen wu am énergie. Mm-hmm. mais ay nit ay organisation yi nga xam ni duñu réew dan fay feeñ parce que ñoo ñëpp ci li loolu ci boobu domaine la nekk di wut alal. Mm-hmm. loolu tëkkandoo boobu dafa compliqué ci lépp li nga xam ni ku nekk moom ngay doxale li nga xam ni mën nga wut. pour li nga soxla ci Sénégal ci pétrole beeg gaz beeg leneen ak leneen influence nga mën ko am dafay am ñi nga xam ne déjà ñu ngi ci terrain bi ànd ak ñoom d'accord nañu ak ñoom signante nañu ak ñoom ñu ngi taxaw di liggéey ak ñoom mais ñooñu lu ñu liggéey ak ñoom liggéey ak ñoom ñoom seen pexe moo dina nekk ci lii nu am suñ ko mënee yokkal seen bopp ñu yokk ko te loolu li koy yokk dafa bokk ci déstabiliser am réew déstabiliser am réew mooy fexe ba mu am ay yëngu-yëngu réew mi du stable nga mën a wax ak ay ñiy diriger réew mi ci lu dul seen sago nga mën a diriger seen sago loolu ñi nga xam ne tamit laaluñu ci affaire bi yoon yu mel noonu la ñuy wut pour essayer créer fii ay yëngu-yëngu mhm. société étrangère yi fi nekk dafa am benn banditisme bu nekk ci biir affaire euh, ci biir monde boobu bi nga xam ni nécessairement il faut que ñu élever suñu niveau wu réaction ba yóbbu ko foofu ba mën a ànd ak ñoom ñëpp réew yi nga xam ne dañu mucc ci loolu dañu élever seen niveau jàkkaarloo ak phénomène yooyu ba mën a mucc ci loolu su fekkee phénomène yi raw na la rek effectivement da ngay dugg ci zone trouble. mu am li nga tudd sànq muy sur région bi instabilité euh, tey euh, bi fan nekk ak euh, présence su groupe Wagner gi ñuy wax tey ñu ne ukrainien la ñu jàpp dëgg la dëkk yi du benn mais bon am nañ proximité tey ci situation géographique ndax mën nañoo ko analyser tamit ci angle boobu ne dafa am lien. yooyu xam nga ñi ñi ngay wax Wagner ak ukrainien. Hmm. ak ñooñu ñëpp buñ dul benn dëkk sax même même même tradition même même aada la nekkoon ñool même formation même idéologie même esprit ci nit ñi ak ci réew yi. Hmm. ñoo bokkoon seen doxalin seen mënin ñoo nekk toujours ci seen ay façon te foofu day zone yi nga xam ni. soo nee Ukraine day zone yi nga xam ni dafa am forme forme banditisme bu élevé bu fa nekk bi nga xam ne mën na jaxasoog lu nekk. Mhm. am na ay mercenaires am na ay gang am na ay n'importe quoi nga xam ni ñoom seen seen seen addina yëpp mooy. fexe ba fu ñu mën a dugg buy nit di dee ay junni junni junni nañu am alal mhm. donc ñooñu mën nañu jaxasoo ak ay ci Wagner yi nga xam ni da nii ay ay ay nee na ay russe lañu mais ay mercenaires lañu ay nit ñi nga xam ni dañ leen di recruter pour xaalis pour def li ñuy def yooyu su fekkee ni ñooñu ànd nañu effectivement dafay source inquiétude bi nga xam ne ñun war nañu renseigner ci li nga xam ni moom la ñu war nan la moom nañu war a mën a taxawee bu opposé wu parce que li ñu soxla dinañ ko wut ci diplomatie mais dinañ ko wut ci tamit ci créer ay trouble profiter ci trouble bi nga xam ni dafa am Mali pour positionner wu fi nga xam ni positionnement militaire lay doon hmm. positionnement militaire boobu moo li koy firnde mooy bal yi nga xam ni moom moo duggee Sénégal xëy na ay fetal jaar na feneen dugguma bal yi day fekki ay fetal fekki yeneen jumtukaay fekki yeneen fekki leneen loolu mooy loolu loolu suñ ko comprendre dañ naan donc ñun ci suñu biir ak ci suñu biti lu sori ak lu jege ñu ngi créer ay nit ñu ngi créer ay positionnement militaire yi nga xam ni ou bien feneen la jëm fii def fi jaar rek wala su demee feneen yi tamit ñun am nañ ci suñu part ñu ngi jàkkaarloog bi donc ñu gën a renforcer suñu système de défense. et si loolu sax sanction yi yëkk yëkkati teg ko ci ndoddu Mali ndax war naa gàllankoor lii di xeexum terrorisme bi. sanction yi euh, politique la. Mm. parce que Mali dafa bokk ci benn sphère politique bi nga xam ni ñooñu su Mali taxawaaye taxawee taxawaay bi jàmmaarloog ñoom ni leen moom fii lay jaar suñu d'accord moom du ñu di sanction yooyu teg ci kawam. Mm. mais tamit bu teree loolu. ak situation bu bees bi mu indi Mali ak présence Wagner yi ak présence ñeneen ñi ak situation bi nekk sunu diggante frontière ak Mali ak situation terrorisme bi ak ni nga xam ne ñoom la ñuy doxalee te ñoom li leen intéressé toujours mooy fu jàmm amut dan fay créer ay yoon fu jàmm amul dañuy renforcer jàmm ñàkk fu am pour que li ñuy wut ñu am ko parce que terrorisme du rek troubler nit ñi dañu am ay objectif ci biir yi nga xam ni su fekkee ni Wagner yi dañu cons de concentré wu ci ba apporter solution hmm. Mali ci yenn anam militaire yi ànd ak armée malienne ak ñooñ ñoom suñ leen favoriser ci yenn situation ba bàyyi leen couloir bi nga xam ne mën na nu perturber ñun dinañ nu perturber parce que on sait très bien que ni ci frontière Sénégal bi déjà am na ay problèmes yi nga xam ni ñu ngi koy am foofu ak terroriste ak ñoom seen ci champ wu wurus yeeg ñoom seen lu mel noonu hmm. loolu dafay ay indice yu grave yi nga xam ni daf ñuy obligé ñun ñu considéré que ni lu ñu gis muy ñuul rek nan ni moom la ba ñu ko ba ñu ba ñu liggéey ba xam ni lu weex la mm-hmm. mais tey lu ñu gis muy ñuul rek dañu d'accord ni lii war nañ ko surveiller et effectivement comme vous l'avez dit situation bi ak Wagner ay ukrainien ay fetal ay ay balu fetal nanu xalaat ne ay fetal ñu nga fa fi bali jëpp ay fetal ñu nga fa bali neen amul njëriñ mm-hmm. que terroriste nekk fenn ay nekk feneen te ñoom bokk ñu ay projet mm-hmm. comportement Wagner ak ñeneen su demee ci bi trop trop trop trop couloir bi nga xam ne suñu kaw loon jëm donc ñun ñoo war a défendre suñu commissaire ñu dellu siwaat ci suñu réew muy Sénégal tey ñu am fii ay forces de défense et de sécurité euh, donc da nga ne police ne euh, gendarmerie ne militaire waaye euh, ñett yooyu boo ko boole woon dina doon dinañ ci gën a am lu lu dal xel waaye tey gis nañ ne ñoom ci seen biir dafay am ay xëccoo léeg nga dégg ñaar ñi jàppante nañu comme liñ dégg ca mbaaw muy policier ak gendarmerie ca caaro caaroy ñu dégg ne benn militaire ay moro moromam euh, benn policier ay moromam euh, ñi nga xam ne ay militaire lañ daal di nañ ko euh, ne ba sax jël armam li ni mel ndax du am lu mu gàllankoor tamit ci suñuy sécurité. il faut ñu dalal suñu xel. Hmm. par rapport dalal xelu nit ñi par rapport ak loolu. Hmm. parce que loo nit bu fi bees rek xam nga lan la buy ay sax xam nga lan la. Hmm. lii dafa dul tax ay daf di rek li fi nekk ci ay force la yu nekkandoo ci benn terrain. ñu dee bu dee diggante militaire yeeg policier loolu yàgg na fi ci Sénégal gi yëpp du Dakar rek fii yàgg na fi trop trop trop xale militaire yi pour dañuy am ay complexe su génn nii alkaat yi mën a dara duma def nii rëcc seen ay chef génn def quelque tooxi doona ci biti xeex ak alkaat wala benn alkaat wala xeex ak juróomi alkaat wala ñu dugg ci benn bar clandestin ñu fekk leen fa ñu leen génn leen ñu bañ protéger baar bi yooyu yëpp affaire u militaire la ñuy jàkkaarloog ay policier incident yooyu su amee traditionnellement xam na nun koy régler dinañ fexe ba xam nan la ci biir caserne yi chef yi taxaw fi ñu war a taxaw mais du incident entre armée ak police musul am incident entre armée ak police que benn militaire wala benn genre benn policier dafa jàppanteeg benn militaire wala ay militaire loolu ñi nekk ci terrain bi ñoo am boobu problème mais système yi seen bopp mosuñu jàkkaarloo parce que ñoo bokk lu ñuy liggéey mm-hmm. bu fekkee ni li xew ci caaro yi la li xew ci diggante gendarme bi ak gendarme bi ak policier yi la mm-hmm. loolu gendarme ak policier dañu bokk terrain bu ñuy liggéey bokk métier ñoo bokk benn métier li ñuy def benn la mm-hmm. mais bokkuñu ay commandement ñii dañ leen def ay gendarme ñi def leen policier pour ñu def même liggéey bi mm-hmm. di ko def nag ci benn réew ku nekk ñëw sàkkal la fi nga xam ni fa nga koy defee ak ni nga xam ni li li nga xam ni moom nga koy defee ci bërëb boobu su fekkee ni dafay am ñeneen ñuy ñëw di dugg ci sa zone ci moment yi nga xam ne yaa ngi fay liggéey mën na am ngeen nekkandoo fa ay at di ko toléré amul benn problème ñiy jaar fii ñiy jaar fii ñiy jaar fii mais bis bu amee nag ki nga xam ni dafa foog ni fii mu taxaw kat kële di fi taxaw barki Demba Ndiaye bu léegi waru fee taxaw su waxee moom directement te yóbbu ko arbitrage ci kaw loolu mën na indi instant te dafay am dafay am benn couloir ay alkaati di fa nekk. traditionnellement ñu jékki-jékki gis ay gendarme ñu ñëw teg seen mbuus gaari seen oto def lii def lii def lii def lii ñooñu quelquefois dañuy dellu ci seen base daal ne ah lii kat am na mm-hmm. dinañ ko régler te ñoom duñ ko yëg quelquefois nag ci seen biir xadar muy ñiy daje ci terrain bi mën na indi ay tegante dënd. Mhm. tegante dënd yooyu tamit du wees tegante dënd mais bu ci chef yi jotee dañuy taxaw fu ñu war a taxaw autour d'une table ku nekk ñu delluwaat la sa place nañu ñaan yàlla rek incident yu mel noonu comme ay nit yu yore fetal la. Mhm. bu mu jur lu grave ak grave ak grave mais incident rek la diggante ñi nekk ci terrain bi du diggante police ak gendarmerie wala police ak euh, armée wala armée ak gendarmerie. loolu amul parce que corps yooyu yëpp dañ leen teg sur place pour que a baax.